ne moom mooy Sandiogou ñoom ñaar dañ leen a woo ca présidence de la république monsieur le président de la république moo leen convoqué lu xew ba Sandiogou ak Kouthia war a daje ca palais ba li ma lay moytoo bañ ma moytoo rek li ma lay moytoo temps yaa ngi toog sa émission boobu di ma wax lu nekk bañ ma tamit lu la neex day wax ah. mënoo maa tere wax sama soxla gars di la jay daan ay saa ñoom lii kërëb kër nga dof dof dama lay dégg sa émission nga may xamoo dara xamoo dara ok yow fii nga toog naan doo sol yore yow doo sol kucaaray sol yore jigéen te yow fii taajaboon yaa ñu teg sa garafaay takk say fer yow fii nga taxaw def fi ñaari ñetti émission yoo xam ne yow jigéen woon sax mbepe mbepe laa la wax mbepe jóge naa ay gis affaire yi ci xel la du ci ay mbepe mbepe xam nga dégg ñun dañuy gérer ñu gérer waaye dama ne mbepe gën a nekk gëneel téeméer xam nga ma ñëw président man loxo laa la wax ma loxo ma fayu la dof dof ma sama gars a ko wax waaw na nga def ça va naka moom waaye yéen ñaar moom prochaine fois boo leen woo boo leen ma koo xam ne mun naa bokk ak moom place kii du ma moroom man ni maa soxla wu ta bokk ak yow balaa toog pour man seen tool si télé bi la yem amee ah, comme yéen ñaar comme xaj ak muus quoi vraiment ah, bokk ma jox la xamoo dara dara nekk gëlé te gëlé fan gëlé fan da yow nag ngay tàppet ay ñaari gars yi daal mën naa la ça va ngay def sa lami na de yow xam nga ma bu doon fii présidence euh. xool bu doon présidence dama ne bu doon présidence dama fu mu yem neex. bu dul ko def. fu mu yem neex. s'il vous plaît Kouthia. bu topp kii s'il te plaît. dafa toog ci jaxam bi wax ay affaire yoo xam ne moom moom fii la njëkk sol yére jigéen taajagoon. sol ko fii def maquillage am ak lépp. ba pare ñu wax ay affaire yi. soo ma ko si gën a. waaye dama ne. saa ku si lii. dugal ku si lii dugal ku si lii Kouthia s'il vous plaît dama ko ñaan tu es un homme civilisé tu es intelligent. léegi dañoo civilisé wu léegi dañoo civilisé wu non mais c'est valable pour vous deux ah. xam nga yoo xamante ni vraiment jaru ko quoi yow ba bureau vraiment di jàppante moom dépassé nga loolu mais sinon na ngeen def. moom mooy dem toog fee. Sadio bu ma sax dend ak yow. pardon kay dend ak yow sa laaw bugul. ñëwal nga toog s'il vous plaît ñëwal nga toog am naa lu may chef man ca tolloo doon dama. ne ku nekk si marché la bul ne président gauche à droite. ñu ngi jéggalu mais loolu de respect. ñu ngi jéggalu. lan mooy seen leçon de de manque de savoir vivre li la la nii. ñu ngi jéggalu ñu ngi jéggalu. yaa ngi nga def comme Kouthia au moins nga toog correctement civilisé. ngi jéggalu. ok c'est bon bon justement dama leen wóolu woon fii tey parce que man instant je suis un peu perdu mais je pense que yéen ñaar ay comédien ngeen am na loo xamante ne bii bu ngeen ñëwee bu fii di ko wax xam naa ne peut kaf la ak reetaan mun ko passé mais yow Kouthia bi daal dëkk bi dafa am si yow yaakaar parce que ñëpp xam nañ ne bu 18 heures xasee ba jot benn rendez-vous la Sénégalais yi am muy Kouthia Show nga nekk si aar nag gi ci def lu am solo loo xam ne adduna bi yëpp reconnaître nañ ko macha soo son excellence monsieur le président nag Macky Sall toog si télé bi devant tous les Sénégalais et devant le monde entier remercier la. gërëm la. ci liggéey bi ngay liggéey di contribuer ci développement dëkk bi. yow aussi bu macha allah yaa ngi ko côté bi nga nekk di fa rayante di def li nga mën macha allah ñu la ciy gërëm aussi di la sant bu baa a baax di la encourager aussi di xam ne yoonu ndaw du gaaw xam nga yaa ngi ci yoon bi macha allah léegi nag dafa am loo xamante ne bii président daf ko soxla woon dafa bëggoon ngeen préparé wu parce que dafa am benn enveloppe boo xam ne ku ci nekk dafa la defal benn chèque chèque boo xamante ne bii ñu ngi ci def chèque bu 15 mais 15 millions bi ku ci ah yow monsieur le président moo la jox chèque wu ah. 15 millions bi. waaw 15 millions yooyu la la jox. saa Ndiogou am nga fi chèque wu 7 millions ah. waaw parce que ku ci nekk dañuy évaluer en fonction de sa liggéey en fonction de sa audience aussi en fonction de ni ngay évoluer ci loolu la ñuy la ñuy liggéey xam nga mais 7 millions yi aussi tamit du tee da ngay ñëw fii nga signer décharge bi ku Kouthia yow moom mën nga ñëw signer décharge bi. tollale ko mën yaa koy romb tollale mbir ma boo ko boo koy jël te mënoo ko yemale rek bu yóbboo sargal bi ñëwal nga signé fii sax mbir naa boo koy def te mënoo yemale rek bu yóbboo nga bàyyi sa borom waaw bu may commencé yaa ngi may seetaan su may signé nag da nga may signé loo ndànk voilà léegi nag président dafa soxla woon ñu mel ni yéen waaw ñoo xam ne dañu mën animation pour mën a bégal ay doomu aadama tax na ba mu wóoru leen si palais bi jox leen li mu leen jox nii xeeb na ko trop nag xeeb na ko trop mais damay woo ki nga xamante ne mooy monsieur le président ma jox leen ko comme ça mu wax leen xaalis bi mu leen jox lan lay xaar ci yéen waaw lan lay xaar ci yéen te xam naa ne du ngeen di mën leen doon nest pas mën yéen a ngi mën a def animation ba léegi waaye man tey la war ay man maa bi ok ràññee ay ay prix ah c'est très bien sponsor ah, macha Allah waaye dama ne loolu ay dóor ay dóor la loolu na xol loolu ay dóor allo salaamaaleykum. allo bonjour monsieur Faye. président Macky Sall. maa ngi lay ziar. sant Sall maa waaw ñu ngi ci liggéey bi di góorgóorlu baax. comment ngi sant bu baax a baax Sall. passe passe ma Sandiogou. ma passe Sandiogou. waaw ah, passe ma Sandiogou ndax Kouthia a waxtaan ak moom lu yàgg moo d' accord amul problème Sandiogou président Macky Sall. Ah, may am mbégte ak contentement bu baax ci yow. yoo wax nag nga góorgóorlu ah. jërëjëf jërëjëf yokku yokku yokku liggéey bi ah. Eh, damay dégg sax souvent nga may jéem toppandoo. waaw eh, xam naa bu ñu gisante ah du yomb ah. ah, ah. ah ok. sama xaalis mais dafa am benn mission mu la bëggoon sant. waaw waaw waaw yaa ngi eh, mais dama bëggoon def naa jot ngeen xaalis mën a jox. waaye jot nañ ci waaye tolloo la wuñ jox. mais baax na baax na baax na baax na. ka defee dafa am benn bëggoon sant. Euh, comme yow nee à chaque fois yéen a fexe nit ñi di reetaan di kontaan. te des nit bu nekkee si ay problème day soxla ree day bëgg di reetaan. comme ni nga koy defee si télé plateau yi. waaw ma bëggoon tey si guddi. Euh, nga ànd ak Kouthia nga demal ma Yemen. dem fan. Yemen la oulia la guerre. Yemen waaw Yemen ci guerre bi waaw. ngeen def fa débat ah. allo Sadio. fan si la ma nee na euh, may na ma ko te jox na la conseil bu defee pour nga mën doxal ma mission boobu. yemen nga demal ma yemen waa ci guerre ba ngeen def départ musical ah. xaaral ma jox ma jox la wax ngeen ba pare. kan la. jëlal jël jëlal rek. président la président ah. waaw mais. waaw mais alo alors président ne quitte pas lii la. waaw mais mais monsieur Diop mais mais mais mais kii bureau la dem ko. mais allo oui oui Sadio mënu maa allo waaw mais lii lii mooy lan mais yaa bi la vraiment man je comprends plus mais président allo mais président waaw ku tax yaa ngi dee dee mais tu parles avec le président président allo président mais loo sa waay moom mais mag yi loo sa waay mais mais kii allo ku tax mais kii bi ngi tuur ndox waaw président mais mais man de bu ñu war a ah? ñaanal. borom borom fi tooyal ndox ndox ndox maa ngi dem kii. alors secrétaire soxla secrétaire foofu secrétaire foofu. mais allo. soxla secrétaire. allo ku la. mais Kouthia tu parles avec le président. oui d'accord mais soyez sérieux quand même. allo Kouthia. waa président yow le président Macky Sall. yow yaa ngi déglu. mais comme ça. mais kii dafa tuur ndox fii mais loo waaw li ma ko maa ngi ñëw ci ça va na nga def. waaye ça va très bien. d'ailleurs maa ngi lay remercier bu baax ah. waaw di am mbégte ak contentement bu baax ci yow. effectivement vraiment di la remercier ceeb waalo bi. jërëjëf. Euh, Sénégal yëpp gis liggéey ci ceeb waalo bi vraiment. waaw waaw waaw d'ailleurs sax maa ngi koor gi. waaw euh, woo la jox la sukuru koor. waaw boo defee dama bëggoon. waaw vraiment comme. am am na lu ma la jox jox ko. waaw waaw la ma chèque bu 15 millions. waaw tu as reçu un chèque de 15 waaw dama bëggoon tey su guddi. ko defee nga ànd ak Sanjoogu waaw euh, nga demal ma yemen tey su guddi ndax vraiment yow vraiment yéen yaa mën a reetaan loo nit ñi waaw ku ci nekk ci naqar rek ku feebar ñëpp mën nga leen faj waaw vraiment dama lay euh, apprécier bu baax ci loolu waaw te xam naa di ma demal yemen euh, mais président waaw d' accord yemen amul benn problème waaw comme que encaissé naa quinze millions waaw te man liggéeyal naa la liggéey boo xam ne fayagoo ma te bor du am raq quoi parce ci ceebu waalo bi ëpp na quinze millions léegi dañ ko féetale foofu rek mu niil ko defee léegi quinze ceebu waalo bi remplacé yemen bi président man ah, dama la liggéeyal munoo ma fay loo xam ne liggéeyal gu ma ko. mais ku ca yaa ngi may jox pour ma dem Yemen te nga amal ma bor ci ceebu waalo bi kon léegi kit nañu quoi mais président. <laughs> wuy man maa ngi yow kit nañu. da ngay d'accord ci loolu mais sa waay moom saw na fii. kat bureau bi kat ma saw ci bureau bi. ana Kouthia yow da nga bëgg comédie nag quoi man dem Yemen parce que dama la liggéeyal lu tax may leen du dem Yemen mais la moo du ma dem du ma dem ah du ma dem waaw maa ngi jégalu de lu a Eh, arrête arrête arrête arrête le coup bi ah. maa waaw monsieur Faye. mais sa waay lan la wax mu ne lan. leneen carrément il a refusé ne demul. dafa bañ ah ceeb waala bi li mu liggéey ceeb waala bi dama ko a fay. Ah, ba pare mu doog a dem Yemen. d' moi les militaires là pourquoi Kouthia a refusé. amul problème mais mais ma droit refusé. président li ma tax. allo wax ceeb waala man kenn woo ma ma woo sama bopp. alors la waaw ñëw leen sama bureau léegi nii ñëw leen sama bureau léegi bu xam kee dugg leen. man j'ai pas peur de. monsieur le président maa ngi koy liggéeyal état bi ba pare. ceebu waalo pendant des mois ba ceeb bi jar ëpp ay ñu bëgg ma yóbbu yemen pourquoi na ma fay ba pare. ça va ça va ana les autres. waaye ils sont là. Eh, lan la na ñëw na ñëw. c'est le commande euh, c'est le lieutenant de base de la. lieutenant de base je m'appelle Samba Sim Kouthia. kan mooy Kouthia. Kouthia mi ngi nii. lu tax doo dem yow. lépp dem na dem parce que plus ça dafa war a dem mais da nga war a dem da ngay dem. du mais c'est pas ça da ngay dem laa la wax eh mais mais mais. Ah mais yow allo. allo naa jàpp andi leen ma beneen élément mais Kouthia ngeen mu ngeen di xool muy dóor la keneen ñëw. andi leen ma beneen garde. Eh, eh, eh, toogal. mais yow da ngay dóore léegi ah Kouthia da ngay dóore léegi. du ma nga jàng arts martiaux di ko nëbb c'est bon. andi leen ma keneen. boy attention il est dangereux ah. fais très attention la. <laughs> waaw. mais mais yéen mais mais. mais yi génne la de yow doo sama morom. mais non attends. xamal naa les grands mots les grands remèdes jàngoro yu mag yi garab yu mag yi ñoo indi faj. ku ma jàngal xeex. ku ca ma jàngal xeex mooy lan. ku la jàngal xeex. yow yow yow. non non non non mais mais mais vous êtes sous les ordres dama kii nga jël ko yóbbu. Eh, eh. am na la gars yi. non mais non non non mais Saw. danaa saw ba tey xepp.